yaa ngi jëfat yi mbokk yi way ànd ak ñun seetaan ak déglu lii mooy doomu naajo ñu ko dee wax graine de courge njariñ wa ca nekk bari lool ndax dafa di meññeef koo xam ni dina la dimbali aar la lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu arrêt cardiaque wala lu jëm ci wàllu AVC yow miy seetaan ak déglu te bëgg mucc ci yooyee del faratal di jëfandikoo doomu naajo bi nga xam ne dañu ko wàll di ko jëfandikoo yow mi bëgg a mucc ci wàllu prostate wala yow mii nga xam ne da nga bëgg yokk doole li nga xam ne moo di cholestérol bu baax boobu muy HDL dee ko farataal di ko jëfandikoo yow mi nemmeeku tànk yu dëgërul wala tànk yoo xam ni dafay am jafe-jafe wala lépp loo xam ne nemmeeku nga sa yaram daal ko farataal di ko jëfandikoo yow mi am diabète type li nga xam ne moom moo di doomu naajo bi baax na ci yow kon mbokk yi seetaan aka déglu. dafa di meññeef goo xam ni njariñ wa ca nekk bari lool ndax daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo gi yàgg na lool lool lool kon ma am na ko képp